bismillahi irrahmaani irrahim wa sallallahu ala nabiil karim sayidina wa mawlana muhammadin il makin wa ala alihi wa asaabihi wa xadimihi zawi ridwaani wa tamkin bokki jullit yi bokki taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi ziyaare bokki jullit yi bokki taalibe yi di jiital ci ziyaar bi xalifa général des mourides cheikh mouhamadul muntaqa di ñaan suñu borom dool li ko sàmm dool li ko aar ba ko mag ñi bàyyee mu di ko sàmm yal na ko yóbbu fu gën a kawe fa mag ñi doon mbébét di nuyu sëñ Ahmadul Muxtaar yi jëwriñam ji ko nekkal fii Daarul Xuddus ci buntu kër Cheikh Mouhamadul Moustapha di ñaan suñu borom wan kiimaanu gudd fan ci jëmmam di nuyu jëwriñu kër gi sëriñ Cheikh Mbacke Madina ak sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Sidil Muxtaar di xalifa Cheikh Mouhamadul Lamine di nuyu mboolem ahfaad Cheikh Mouhamadul Moustapha yëpp ñu nekk fii tey ci eh, daarul Xuddoos di waaj bisub isrina muharram muy fukki fan ak juróom-ñeent di ñaar fukki guddi ci aw tamxarit wi Serigne Touba fanaansee ci dëkk bi nga xamante ne ni moo ko gënal ci dëkk yi dëkk bi taxoon muy wax waccal ilaahi maskani Touba abat mislasmiha bi jaahi xayri man abat di bisub ñaan di bisub fàttaliku di bisub yërmande di bisub njëggal waaye saa yu bis bi jub see nag am solo gu bis bi am solo tax na ñuy amal ay jataay yu waxtaan ngir fàttalante ak dollente ak laayante biir te lépp jëm rekk ci fàttali dundu njaboot gi seeni jikko yu am solo seeni taxawaay yu rafet seen yitte ju kawe seenuk am njariñ ci nit ñi loolu tax na waxtu ci nekk ñu seet ñenn ci njaboot gi di fàttalante ak bokki talibe yi seeni jikko ngir ma nu mag mu baax day wax ni booy wut référence xool ko ci biir suuf waaye ñi ci kaw amaana boo leen royee mën ngaa jóom ñooñee ci biir suuf nag dañoo tegoon seen tànk fa leen suñ borom joxoñoon wa anna haza sirati mustaqiman fattabiuhu ca digg yoon wala ñaw te fa suwuñ ko jaaruñu ci ñal wa tey nag ñu tànn kenn koo xamante ne nii Serigne Aliou Mbacke lañ koy wax di doom ci Cheikh Mouhamadul Moustapha tooge ab jataayam di ñeenteelu xalifam ñu bëgg a waxtaane lenn ci ay taxawaayam waxtaane lenn ci ay jikkoom waxtaane itam lenn ci ay jaar-jaaram ngir mag ñi mën cee fàttalikoo gone yi mën cee roye ndax jamono laaj na ko te mag ñi buñ leen bëggee xam faw ñu delluwaat ci seen démb moom nag doomi Cheikh ma Moustapha waaye ñu bàyyi xel bu baax a baax ni seen waajur wu tedd wa daan wax ni sama doom joo làmb man ngay daj loolu nag ci saayir mënees na koo firi waaye baatin ba suñ boroom rek ko xam ndax yaaba xarimaam mi nga xamante ne ni mooy waajur xarimaam mu ndaw mi jur sëriñ Aliou ak sëriñ Ahmad Tindo di yaaba moomee ak soxna Amintaloo ñoo bokk xarimaam kon bu waxee loolu ci saayir mënees na ko firi waaye baatin ba suñ borom rek moo ko xam doon na wax itam ni du ma jur ku ñàkk joom duma jur ku yaafus te loolu feeñ na ci njabootam ci seen taxawaay moo tax tey nu ngi toog ak kenn di sëriñ Mbay Longoor bokk ci jawriñ yi kër gi bu saaxibu maktabati nuur di kenn ci liggéeykati kër gi kenn itam ci koo xamante ne ni kër gi rek moo ko ñor sëñ Tuubaa lépp ñor moom la teg loxo fas yéene mu jëm ca kanam fas yéene itam gone yi mën koo dund te lépp ñu di ko roote rek ca ñu mag ñu demb doonoon itam ci jawriñi sëriñ Aliou yi diir bi doon ab xalifa doonoon ab loxoom féete woon ko ci wet gu bare bari loolu moo tax ñu tànn ko tey ngir mu andil nu benn tënk ci Seydina Aliou moom yi kon sëñ bay bismillah bismillahi alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sayidi alxalqi ajmain wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi amin jërëjëf sëñ Ahmadou Ndiaye Nguerane ñu ngi lay ziar baax di la ndokkeel di nuyu bokki jullit yëpp bokki taalibe yëpp ni ko waxee rek nuyoo bi daanaka tënk nga ko jërul nu ci jaaraat xanaa rek ñaanal kilifa yoon wi Cheikh Mouhamadul Muntaqa mi xadimul Moustapha jëwriñu Yonent bi ci kaw suuf sunu borom yàggal ko fi te wéral ko yàggal fi rakkam ji di sunu kilifa di sunu sang di sunu jëwriñ fi daaru xudus mu Cheikh Ahmadul Muxtaar wahaballaahu lahu maa lahu xtaar di ñaanal njaboot gi ak jullit yëpp nag taalibe yëpp sunu borom. dolli nu ndimbal ak yërmande ak ñeewante ak mucc ci musiba yeeg balaa yeeg mbas yi ak tiis yeeg bàkkaar yeeg begoor yi ak lépp luy tiis rek nu mucc ci ci xurmay gaa yu baax yi nga xam ne ñoom lañ topp daraje xurmaatillah te xurmaatillah yooyee pàkki biiru nekk doon ci benn muy daaru qudduusi boroom wax ne li rabbil alamina mursili ahmada sallallahu alayhi wa nu teew fi tey fii ci bayti ngir rek fàttaliku ndax innamal amalu binniyaati wa niyati tabaruku bi saadaati sëriñ bi ne xoqal bukaau ala saadaati namwaati tabkil araadi alayhim kassamaawaati bakaytu xablu ala saadaatin amwaati tabkil araadi alayhim kassamaawaati dafa yey lool nuy fàttaliku gaa yu baax ya sang yi nga xam ne ñoo xàll yoon wi ba mu fii buñ toogee ba lépp dal neex lépp tege ci yoon raay bi tege li ñaan raay bi tege ci saxaar gi tege ci raay bi dox bu baax laaj na nag nu toogaat sant delloo njukkal fàttaliku ña nga xam ne ñoo xàlloon yoon wi ba muy e, jafe ngir loolu kenn ca sang yooyu di sëriñ Serigne Aliou Mbacké doonoon ñeenteeli xalifa Cheikh Moustapha moom lañ bëgg a ànd rek seede ci moom wax ci moom tuuti loo xam ne dana mën nekk référence royukaay pour ndaw ñi feeñ gannaawam ak ñi ko yaakaar ñëpp ñu mën cee bàyyi xel ngir moom amoon na ndam réussiroon na ci diine ak ci duniyaa kon fa mu jaaroon na mu meloon ba réussir suñ ko xamee rek dana jariñ ku koy déglu ku ne te waxtaan gi danañ ci am yool moom it suñu borom dana ko ci dolli. sang bu tedd bii nga xam ne moom la ñuy war a waxtaanee muy Seydina Aliou Mbacké mi ngi gane jamono. fii fi Touba kan moo koy jur Cheikh Mouhamadul Moustapha taawu Xadimal Moustapha mooy woy juram moom sëñ Aliou Mbacké woy juram wu jigéen di soxna Xarimaam Diop diggante boobu la feeñe ci ñaar ñooñi 1918 ci la sëñ Aliou Mbacké gane jamono 1918 mi ngi gane jamono fii ci Daaru Minan kër gii tey njabootu Serigne Bachirou ibnu Cheikhil Khadim dëkke foofii ci biir kër gi la sëñ Aliou Mbacké gane jamono tey xalifatul muridina al cheikh Mouhamadul Muntaxal Bachir fa la dëkke waaye juróom wa cheikh Mouhamadul Bachir fa la dëkke woon waaye 1918 jooju fekk na Cheikh Moussa moo dëkke kër ga ba fa la sëriñ Aliou Mbacké gane jamono. yàlla dogal mu yaroo ci ron Cheikh Moustapha ba war a dal jàng alquranu karim toll ci juróom benn at juróom-ñaar Cheikh Moustapha jaarale ko fa ñuy jaarale ñu bëgg a baax ñépp te war a baax mu tabal ko ci daara mu jàng alquranu karim fi daaru rahmaan gii ci charxu Touba mu ngi ci soowu Touba soriwul dara foo fii la jàngi alquranul karim dal fa alquran jàng ko ba mokkal ko bind ko ba mu noppee ca loola dal di suubu ci xam-xam tafsir téere boobu di alquranul karim mu tafsir ko kon jàng na alquranul karim am na ci xifsu mooy wattu na ko kitaabatu bind na kaamil waaye tafsir na ko it yu am solo loo xam ne kon bokk na ci ngànnaay yu jëkk yi nga xam ne moom lañuy ñuy waajale ku war a jiite même sax ku warut jiite te ab rek loolu mënta ñàkk ci yow faratala la waaye moom mii day jaaral nañ ko foofii ba yooyu yëpp mu matal ko yar ko ci diine gannaaw ba nag la daal di sóobu ci njàngum xam-xam daal di commencé njàngam jàng na ci borom xam-xam yii ci Touba yëpp rek mboolem ko fi digg diggante Touba ak Njaareem muy borom xam-xam Serigne Aliou Mbacké taataan na xam-xamam ba jàng ci moom xam-xam lu mel ne xam-xami diine yi gannaaw alquranul karim kal fiq ka tawxiidi wa axawayhi al fiq wa tasawuf jàng na leen ci mboolem boroom xam-xam yii fii tuubaay yépp ak njaareem ba géeju ci xam-xam ba mel ne téere yi nga xam ne moom la waroon a jàng ci réew mi yëpp eggal na ko loolee moo waral wuy juróomu tedd wa cheikh Mouhamadul Moustapha boole koog magam ji sëñ Mahmoudan Xariloo moom cheikh Moustapha yóbbu leen gànnaar ci ardul bayaadiin ñu war a mottali ji seenum njàng nga xam ne alquran bu ko daan jàng day mel ne euh, ab naar moo koy jàng fonkoon njàngum alquran lool ay waqafam suba. balaa xëy digg bëccëg tisbaar fuñ ñu sëlmee tisbaar yaa ngi koy digg baat bi riir ci alquraanu karim muy ku fonk xam-xam bëgg alquran lool fonk it xasida yi sëñ yi lool rawatina gàncee wax jaalibatul maraaxi bi moom di mosu ko jënnal mës ta fande jaalibatul maraaxib ñaari waqafam yooyu suba ngoon ak al wirdul maxuuz bu fajar wi ak bu takkusaan wi loolu it mën na noo seere ne mosu ko jëndal yàlla seere na ko egg na ci bu ma sànni tëll jóge daaru naim ñëw fii ci béyti daaru xudus bu yegsee rek bu dee yoon mu ko xaw bett mu xool jumtukaay yi mel ne maraaxib bilaa laa ñëwut ci saasi lay daal di jox génn bi ok rek ne demal ci Cheikh Diop mais ci bunt kër ba ca ca ma mu jox ko maraaxib nga xam ne maraaxib moom mënu ko woon a jëndal moo wirdu ma axuus ngoon muy wasifatu sabaxi wala masaa yi musu ko waaye it ñaari waqafam yi muy suba gi ak tisbaar ji mus sa jëndal jooju lu mu tabje tabje loolee ma nga ca moom Seydina Ali Mbàkke bi mu jógee gànnaar ba njàngam mat njàng sax du jeex ndax ni ko euh, gaa ñi waxe rek man taraka taalluma fal yatruki taalima ku bàyyi jàng mën ngaa bàyyi jàngale moo tax njàng jeexut waaye nag li nga xam ne moom la war a mën a gànnaayu ba mën a continuer boppam nag loolu moom mat na sëkk ci jëmmam ji muy diggante xam-xami diine yi ak xam ak alaad muy luxatul arabia wal alaat ak jumtukaay yi muy àndal yëpp sëñ Aliou Mbacké euh, xereñe woon na ko ba langue bi nga xam ne mooy langue française sax euh, yéeme woon na ci bu ko làkkee wala mu bind ko da nga ci yéemu lool rawatina mbindam kon ku cultivé la woon ku am culture général ci wàllu adduna daawul jàngalu lettre de lettre français kon kooku mooy ñeenteelu xalifa cheikh Mouhamadul Moustapha waaye ci xamal leen ak mataayam ak sellaayam ak dayoom bi yàlla dogalee mu jógee ci njàng moomu Mauritanie ba ñëw Touba des ci loxoy baayam bi ko cheikh Moustapha xoolee ba settantal ko moom la tànn. dëkkam bi ñuy wax daaru naim di dëkk bu Cheikh Moustapha fonkoon lool daaru naimi hiya naama ujaada biha lil Moustapha xabla haadul juudi wal karami yaa rabbi waasil lahu haazi bitilka kama awattahu karaman yaa yaa daaiman niami loolu sëñ Mbàkke Buso moo ko wax daaru naim wax ko Cheikh Moustapha ci ngan gum fa gana ji woon Cheikh Moustapha ànd ak mago dëkk bépp Cheikh Mamadou Fadal Cheikh Mamadou Bachir gaa yu baax yépp fekk na Cheikh Moustapha Daaru Naim ba béy di seex Serigne Mbacké Bousso moo ko rotal ci dëkk bu sell boobe kon Daaru Naim googi nag Cheikh Moustapha tànn Serigne Aliou Mbacké ci ay at yu néew dal ko fay yóbbu woo mag ñi ñëpp ba ñu teew xam naa du so 39 39 bi sëñ Moudou Moussa di sanc Taïf jógee Daaru Naim di sanc ji Taïf Mbakke 1939 ca la woo signal yi Mbakke mu ñëw mu teg ko fa woo mag ñi ñëpp boole leen moom ne dëkk bi ak li ci nekk lépp jox naa ko Aliou Mbakke mi installé ko fa bàyyi ko fa ak dëkk ba ak mboolem la ci dëkk ba. muy lu yéeme lu màgg it nag di it loo xam ne tegtale ne kan mooy Serigne yi Mbacké ci at yu néewee noonu waxtu woow yi ak ña nekkoon daaru naa ñëpp mu wóolu ci Serigne Aliou Mbacké ba teg ko fa bàyyi ko fa ak la fa nekk lépp dal di toxu ji nag Taif Mbacké Serigne Aliou des daaru naayim ne fa nekk ca la ko mu Moustapha sant foofa ba ko fa muy saytu dëkk ba saytuwaa dëkk ba sax ci jàng ak liggéey ak gore loolu daal mën nañ koo seere bu wóor ci gëstu yu sell yu wér yoo xam ne am nañ ko ci ci ci ci ci jaar-jaari Serigne Aliou daru Daaru Naim googu yi di cërub Serigne Aliou Mbacké bi Cheikh Moustapha sañ ci Daaru Naim magi njaari mi nga xam ne ñoo àndoon ak Serigne Touba yoroon daaray kaamil ja nekkoon ci di di di taxawu kaamil ba Cheikh Moustapha da leen a tànn ñoom ñëpp indi leen daaru naayim mboolem ña ca ñëpp da leen a indi daaru naayim kon mel na ne daaru naayim Cheikh Moustapha euh, am na fu ki ñu wax alxaaji Ibrahima ñas bu ñaseen ñëw na fii fi Touba. gane si Cheikh Moustapha ci waxtu yi nu toll waxtu yi wax set muy taw mu war fas ak ñim àndal fekk Cheikh Moustapha fii di ko di ko seet si Touba di ko nuyu si ba mu ñëwee ñu ne ko Cheikh Moustapha mi ngi daaru Naim El Hadj Ibrahima Niass noonu la wëlbatikoo ànd ak fas ya wuti daaru Naim ba mu àggee fekk Cheikh Moustapha daaru Naim Cheikh Moustapha teeru ko teral ko dalal ko ci néeg bi nga xam ne mooy néegu boppam dem moom dal ca fee nga xam ne fa lay dalal gan ña moom Cheikh Moustapha toxu foofa indi bàyyi Cheikh Ibrahima Niass ci néegu boppam bi ci tabax bu tabax bi nga xam ne moo mooy bu mag ba tiwil ba teral ko lool ba ci suba sa mu xëy dellu mu gunge ko bi mu dëppee nag toogaat mag ñi ak taalibe yi ak mbooloo mi surtout mu ne ci biir am mag ñi ko fekk sax di di waxtaan ak moom di diislu fi mu ko dalal ci li mu doon sëñ Tuubaa ak li mu làmboo ci ay maqaama ki martaba daral kilifa googu yi ci néegu boppam lalu boppam mu fanaan ca loolu yi am mag ñoo xam ne ñoom ñoo ngi koy réylu ak di ko ëpplu ak di ko diislu Cheikh Moustapha ca mat gaak nite ga ak ngor ga ak melowa mooy leen la ilaha yéen day xanaa xamu leen ne kii kii sama nawle te kat bàyyi na këram lu mel nii dox ci taw bi ba egsi ngir man su ma ko defalul nii mu gën maa gore moom foofu la gisee boppam kooku Cheikh Moustapha mooy bàyyi signal nii Mbàkke mii Serigne Aliou jël ci moom ngor googa ngorug Cheikh Moustapha kenn du ci ëppale Serigne Aliou Mbacke dégg naa ci lenn ci ay magam ay mbokkam ñu mbokkal Cheikh Moustapha ñu ne moom Aliou Mbacke de ngor li ñuy wax ngor dafa mel ne daf koo àggale sax foo xam ne ngor àggu fa fa Serigne Aliou Mbacke àggale ngor ñoom dañoo seereen sax ngor daa mel ni ngor ngor àggu fa kon mel ne ne ku gore woon la ku soy woon ci ngor la moom Serigne Aliou mbakki doonoon borom teraanga lool daaru naim ku ko fu masa fekk teral na la ba nga rus wala mu teral la ba nga jooy bari na lool ku fonkoon doomu aadama fonk nit ku mën di doon rawatina jullit euh, mu daal di wuutu Cheikh Moustapha foofu fa daaru naim nag wéyal fa jikko ya nga xam ne moom la Cheikh Moustapha yore woon dëkk ba ak mag ña yàlla dogal mu sax ci loolu ba Cheikh Moustapha nag wàcc liggéey dellu fa baayam ak turandoom Seydina Muhammad Cheikhul Khadim Serigne Cheikh Mbacké Gaynde Fatma wuutu ko ci Daaru Xuddus ci siisub Daaru Xuddus bi la ko Gaynde ma wuutu jiite kër gépp Serigne Aliou Mbacké jébbal ko boppam ak lamu am lépp ak kum am topp ci gannaawam di ab taalibeem di rakkam di ko déglu nekk fa ko bàyyam woon di déglu ndigalal kër gi Cheikh si Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma mi taaw Cheikh Moustapha noonu la ko toppee mel ne Cheikh Moustapha jógewu fu ci moom ba sëriñ Serigne Cheikh Mbacké fekkee yonent bi ak sëñ Touba ak Cheikh Moustapha sëñ Mbacké Madina wuutu ko ci kër gi 1978 Serigne Aliou yeeslu ci moom topp ci gannaawam def jëwriñam di taalibeem buy déglu ay ndigalam di moytu ay tereem sax fa ko bàyyee tegoon ak lam ko bàyyee woon ba Serigne Mbacké Madina yeesal li muy yeesal liggéey li muy liggéey ci yoon wi yëpp ak ci kër gi dellu ca boroomam Serigne Mahmoudan Xariloo wuutu sëñ Mbacke Madina 1960 67 euh, euh, jëm 60 66 65 66 85 86 85 86 moo ci liggéey yàggu fi waaye yàqu fi defar na lépp di ay weer yu am doole yoo xam ne sëñ Mahmoudan téye na ko kër gi téye bu rafet. dooro teg yan bi ci loxol sëriñ Aliou Mbacké sëriñ Aliou Mbacké nag jógee Daaru Naim euh, jàpp naa ne way juróom wa ñàkkul woon lu ko déey ci ne dana tooge ab jotaayam ca la ñibbisee na Touba ñëw sañ ci bayti Daaru Xuddus dëkkee ko tàllal loxoom ubbi buntam boot njaboot gépp ñu topp ci gannaawam mu def kër gi benn feddali li fi fekkoon lépp mu sàmm ko feddali ko téye ko sàmm ko yeesalaat kër gii di Daaru Xudus dundal ko lool def fi lépp lu mu am man yeesal kër gi ànd ak waa kër sëñ Daaru Xasan lu ne mu yeesalaat ko ah, na ko sëñ Cheikh Mbacke magam ja waxe woon rek wa ma ala al xalaf illa an yasuuna asaara salaf ab xalifa ku wutu la war mooy nga ñoŋal sàmm jeexitali ka wuutu sëñ Cheikh Mbacké loolu la waxoon bind ko foofee la tege woon fa la rakam yi tege woon bayan bi egsi ci rakam ji di Seydina Ali Mbacké 1986 mu jël yan bi saytuwaat kër gi su nooree mu noor fii ci tuuba nawet mu naweti Daaru Nahim sax ca la nga xam ne moom la koy juróomoo santoon muy jàng a liggéey ak jaamu yàlla bay jàng julli bay joxe loolu de muy jikkoy sëriñ yàlla yu jàng julli bay joxe ci la wutoo magam ya wuutu baayam ba dundal kër gi lool dundal bis biinu nu jëm muy isruna muharram mu taxawee ko ànd koog rakkam yu baax ya ñu ngi ciy fàttaliku sëriñ Ahmadou Mbacke Tundóor wi ñoo bokk ndey ak baay waaye sëriñ Abdou Salaam Mbacke magam ju baax ja ñoo bokk ndey ak baay sëriñ Ahmadou Mbacke Tundóor di ànd sëriñ Salihu Moustapha sëriñ Ibrahima ak sëriñ Xaadim Mbacke si Ahmadou Mokhtar mii tey yàlla nag fi yàlla yàggal te wéral ko ñu ànd topp ci gannaawam taxaw kër gi lool taxaw. ndono li lool sàmm ko bis boo bii di ishrona muharram yëkkatiwu ko woon na lool ci jamono sëñ Aliou Mbacke demoon na ba bis boobu yi daanañ def ñetti turbine ci pinc mi boole kook mbaarum Daaru Xudus mi te lépp ay fees saa bu yegsee adduna jëpp sëriñ Aliou tàllal leen loxo woo leen ñu ñëw mu màggal bis bi dundal ko ca na ko Cheikh Moustapha waxe woon ne maa leen woo ci bis bii muy ishrona muharram ngir lan ngir fàttali ngir fàttali leen loolu moo jiitu ci pas-pasu bisu isrona muharram ku jiite ay julit rawatina communauté bu day na jiite googee te communication jafe ca la Cheikh defoon bis bi sëñ Tuubaa ñi bisee mu de ku muy ab rendez-vous ñeel murit yëpp ngir dafa wax ne da leen a woo ngir mënu leen a ñàkk fàttali batale bi ak ndénkaan fi sëñ Touba bàyyi mu ne nag mu lëkkale ko ak bis bi sëñ Touba ñibbisee Touba kon da koo lëkkale ak bisbi muy yaar yëf woote bii innama jamaatukum haza al ijtimaa li uzakkirakum yowma al jamci la si laa rayba fiihi woote bi nee na taskiratu muy fàttali jaami yàlla yi sunu borom delloo la ci sunu borom moo waral woote bi mu yeew ko ci bis bii Seyxul Xadim ñibbi see Tuuba ak li bis bi lamboo ci ay buut mu boole yaar yooyu ne moo tax mu woo képp ku ko yaakaar ngir bu ñëwee mu ànd ak ñoom jàngaat waat yoon wi ak ngër mi ak diine ji ak li ñu mu def ay waxtaan def adressé ko mbooloo mi wax leen fi mu tege ak fi mu leen tege fi mu leen teg ak li leen sant ak fi war a jaar digal leen tere leen xupp leen bégal leen jox leen yóbbal ba déwénati loolu ci jamonoy Cheikh Moustapha mooy li xewoon Touba si Aliou Mbacké ne bi mu demee ba toog jotaayu Daaru Xudus bi di jëmmi Cheikh Moustapha loolee defaat na ca euh, yitte yoo xam ne yu kawe la ba bis bi dundaat dundin woo xam ne euh, yéeme na loolu ci tënk mel ni kon Serigne Aliou sàmmoon na li ko Cheikh Moustapha batale woon ba mat sëkk muy diggante Daaru Naim gi mu ko jëkk a jox wóolu ko fa ba mu ko yaree ba mu yaru mu yee ko ba mu yeewu mu jàngal ko ba mu ne ar teg ko nag ci bërëb boobu mu nekkal ko fa ba yàllay dem dox jamonoy dox ba ba mu wuutu way juram la ko way juram bàyyee woon bàyyee ko ay magam mu sàmm ko baloola loola àgg fa foo xam ne kawe na njort ba mu weesu fa nekkoon. may ñëw ci Daaru Naim googi ko Cheikh Moustapha joxoon mu nefa fa nekkin wa yéeme lool ci taaru ak waa tund wa yëpp sëriñ Aliou Mbacké di leen nampal di leen xont di leen dimbali te mos caa xàmmee tijaan wala murit wala xaadir wala leen mboolem tund wa lépp rek sëriñ Aliou Mbacké tàllal leen loxo wuuf leen boot leen ba loola doonoon loo xam ne ñoom ñëpp seere nañ ko waaye moo tax it Daaru Naim googi Cheikh Moussa nee na ko nekkal fii Aliou Mbacké sax ci lii ma la digal muy jàng ak bay soo ko defee danaa la fi fekk lépp lu am ci dëkk dana fi am loolu Cheikh Moussa digoon na ko ci la boppam waaye tey jii ma leen di wax de Daaru Naim ak commune la am na maire ku ñu wax sëñ Cheikh Baara Guèye di taalib boo xam ne sëñ Aliou ko yar moo ko tërbiya lu ne moom moo ko def ci moom mooy maire ba am nay école ay CM am nay fajukaay am na ndox am na courant dara mankiitu fa léegi te loolu yi ba ko Cheikh Moustapha di wax sëñ day neexul woon a xam neexul woon a dégg waaye tey lépp a nga fa fa tabarakallah yàlla ko yàlla yokku euh, noonu daal moom mooy doxinu Serigne Aliou Mbacké am naa fi léegi sax mbindum loxoom moo xam ne daayira bii ñuy wax Ahbabul Moustapha sosoo woon ci ay sosoo woon ci ci ci ndigalam 1988 gis am naa mbindum loxoom moo xam ne bind na di soññee ci liggéey boobu adressé ko sëñ Mbacké Awa Ndiaye ma doonoon xalifa sëñ Daaru Xasan Ndiaye di di soññee ci liggéeyu booloo bi ci kër gi loolu da ciy liggéey liggéey bu am solo moom sëñ Aliou Mbacké def na ci liggéey boo xam ne waaye diggam ak njabootu sëñ Tuubaa gi rawatina sëñ Saalihu Mbacké mi mu mujjal siqal yoon wi demoon na ba sëriñ Saalihu Mbacké moom Seyxul Xadiim wóolu ko bëgg ko ba nekk sama kër bopp gii sabaat moo fi dox lépp loo fi doxal rek muy wéy demoon na ba jébbal ko kër boppam googee ngir naw gum naw Serigne Aliou mbake ak xam gum ko xam ak wóolu gum ko woolu tax mu dem ba daanaka dénkoon na ko baatu kër googee Serigne Aliou taxawoon na taxawaay boo xam ne Serigne Touba gërëm na ko daana defar ak bokk lu ma sa yàqu wala mu bëgg a ci bokk daana dox ay tànkam. dox loolo ba defar waat def na ko ay fu bare bare baree bëri ah kon daal liñ mën a wax ci sëriñ Aliou Mbacké mooy makaarimal axlaax tab ga fokk ma waxaale ko sëriñ Aliou Mbacké kenn du ko gën a tabe ci àdduna kenn du ko gën a gore fonk diine lool woyof ak taalibe it kenn du ko ëpple surtout maanaam savoir vivre ak humanité am na bés ku ñu wax sëñ Mat Jóob baayam ñëw ci sëñ Aliou Mbàkke di fekk ko Daaru Naayim ganesi ko bi mu ko ganesee ba yeewi ko ne man de yi Mbàkke sëñ Aliou Aliou Mbàkke ñett daal laa la indaaleel ci ngan ki boo ci tànn nag ma jox la ko yóbbaale ci des mu ne ko lu mu mu ne ko sama doom ji di Mat Jóob fi mu ne nii mi ngi dëkk Ndindi fa dëkk mi ngi dund mi ngi ñuy dégg mu ne ma ju sama doom ji dey ak junni bii ak fas wii ñett yi loo ci bëgg rek ma bàyyil la ko fi ah kooku de mi ngi nattu mag la de mi ngi nattu de ma sama doom ji sama fas wii ak junni bii loo ci jël rek ma ma tànnal ci loo jël ma ma ma ma ma ma ma ma ma yóbbaale yi ci des sëriñ Aliou Mbacke nag Mouhamadou mii tànn kii nit Muhammad man kii laa tànn góor ga ne ko ah, waaw baax na Mbàkke man di dama la doon seetlu rek waaye daal gis naa li ma doon seet léegi jox naa la yett yépp dal fay bàyyi doom ja ak fas wa ak junni ba su doon man junni bi laay jël wala fas wi waaye moom won won na fane yii nga wax yëpp nit mu ci solo valeur doomu adama la ko won ne ko man xam naa ko duma ma gam-gamle doomu adama ak lii muy lu rëy loo xam ne mënees na ci jàng ba tey xolu suy Aliou akum xelam kon daal doomu am di Moustapha Ngom ci nii la nekke woon ba ba ba ba ba ba le huit le huit avril mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit le huit avril mille neuf cent quatre vingt dix ci la ci la wàcc liggéey fi daaru naayim kon mu mel ne euh, tooge na ci xilaaf ak Cheikh Moustapha fukki at ak ñaar yilif na ko daaru xuddus béyti gi am ci ay at ci kaw jamono juróom-ñett fukki at wuutu fukki at ñaar dara mës ta ci moom léppi kër gi léppi yoon wi sëñ àll yi fu ci ne jëf na fa jëf ju rëy kon kookoy sëñ àll yi Mbàkke doomi Cheikh Mouhamadul Moussa Soxna Xalimaam Diop gane jamono fii ci daaru sa daaru Minan atum 1918 jàngi fii fi Daaru Rahman ak fi Touba eggale Mauritanie

mille neuf cent euh, quatre-vingt-dix-huit ci la sëriñ Aliou Mbacké door a tuxoo fii ci daaru Dunya fa daaru Naim fekki way juróom wa fekki maamam ji Cheikhul Khadim fekki sangub Cheikhul Khadim sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal suñ borom dolli ay leer dolli ko ay ngëneel dolli ko ay ngërëm te tas na ci barkeem mu bàyyi fi nag sëñ Xaadim Mbàkke Moustapha mu wuutu ko ci daaru Xudus bàyyi fit sëñ Cheikh Aliou Mbàkke mu wuutu ko ci daaru Naim ñu ànd wéyal liggéey bi wéyal ndono li di ko rafetal ba tey ji lépp ne ci loxo sëñ Ahmadul Muxtaar wahaballaahu lahu maalahu taar mu woo ñëpp wuuf ñëpp soññ ñëpp fa tabaarakallah yal na ko yàlla may mu yàgg fi lool ba dund dund kiimaan ci yàgg yal na ko suñu borom jàng dolli ko wér sëriñ Aliou Mbacké nu koy siyaare di ko ndokkeel di ko sargal di sargal njabootu sëriñ Aliou mépp waaye di jaal sëriñ Aliou Mbacké di jaal sëriñ Cheikh Aliou kii nga xam ne mooy sëriñ Ahmadou Mbacké moom sëriñ Aliou Mbacké fan yi la suñ borom dogal mu wàccib liggéey dellu ca boromam doonoon jëmm joo xam ne ku ko mas a gis rek xam ne signal yoo ngi nii moom la duppi woon nuru ko xal-xan waxul xan moom sëñ Ahmadou Mbacké Aliou moom la wutaloon fii fii que sëñ Ahmadou Mbacké tindoo di waaye suñ borom def ci coobareem mu bàyyi fi doom sëñ Moustapha Mbacké Aliou Moustapha Mbacké Aliou Moustapha am Aliou nu ngi koy jaal di ko jaal sëriñ Cheikh Aliou waaye di ñaan loolu gëj fi lool di ndokkeel njaboot gi yëpp sëriñ Guèye moom daaru naay moom sëñ Aliou moo ñu wax mukk kenn du tudd sëñ ndax te te te tuddoo ko mel ne sëriñ Guèye sëriñ euh, Cheikh Baara Guèye sëriñ Amdi Mbuub sëriñ Amdi Jaañ ak sëriñ Amdi Ñas ak ñan deme ndax fa yaa xaadimal muxtaar yi laa tansa saxbahu fa man yansahum fal matxu matxun muqattaw kon noo ngi santaat diwaanul muridina di santaat taxawaay sëñ usman Mbakke ci kër maamam gii kër baayam gii taxawaay bi rafet na lool kaar yàlla ko suñu borom tëbb kàttan doole wonale xol yi bañ xam bañ bañ gën a sax ci booloo li nga xam ne mooy ndigalal Cheikh Moustapha li jiitu ci ndigalal Cheikh Moustapha gannaaw jaamu yàlla ak ragal ko liggéey mooy booloo bennoo loolu it yàlla na ci yàlla may ndam sëriñ Ahmadul Muxtaar mii sëriñ Ousmane mi liggéey liggéey yu rëy ànd koog diiwaanul muridina ànd koog waa kër gépp di santaat taxawaayu ñi topp ci gannaawam rawatina ku mel ne Ahmadou Diaye Ngeeraan fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiina yàlla na yàlla dolli yàlla nu yàlla tëbb kattan gunu mën a liggéeyal yàlla ci ñu sell ñu tedd jën yàlla booleel mu njabootu sëñ Tuubaa njabootu Cheikh Moustapha jërëjëf sëñ Mbaye ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ci waxtaan wu am solo wi nga xamante ne nii doon na ko amal waaye ñuy wax bokki julli rek waxtaan wi buñ ko barkeeloo nañ ko jariñoo ay bind lañ doon nafaraat di fàttali ay jikko di fàttali yitte ju kawe ak pas-pas ak taalibe ci jëmm ji di Serigne Aliou Mbacké nga xam ne su ma bëggoon a résumer damay wax ni jaamu yàlla la bu nangu ak njaam te loolu la seen maam ja doon wuyoo Abdul Xaddim di ab jullit bu rafetal ak njullitam musta am xaar ma yàlla ak benn jullit waxuma ab tariixa waaye benn jullit rek moom ma saamal xaar ma yàlla amut ñëpp lim yéene boppam la leen yéene di taalibeb sëñ Tuubaa bu ko gëm te doyloo ko boolewut sañ Tuubaa ak dara loolu ñëpp mën nañ koo seere di nit ku yéene ñëpp jàmm loolu itam bokk na ci jikko yi nga xamante ni war nañ ko roy ci moom mu doon nit ku woyof koo xamante ni màndarga la yu bokk ci ay melokaanam doon nit ku mën a muñ ndax sëñ Fallou danaan wax ni ñaara ñu fi bàyyi xaj ak xajo xaj seeni bon bon ak xajo seeni bang-bang kon nit ku mënoon a muñ la nit ku yaatu la itam ku yaatu dënn ku mën a xajoo ñépp nit ku lewet lool koo xam yëkkati siritug jëm yombut lu dul ni nga benn doomu aadama mbaa nga benn santaane sun borom bi waaw su benn loolu rek mën ngaa bañ a xam jikkoom nit ku tabe ndax ba mu ganee àdduna ba mu ni mu fi jógee musul jóg di kër kër yi waaye mustam dencukaayu xalis lépp lu musa ñëw delloo na ko ci jaam yàlla yi nit ku gore la itam mooy bàyyi nit ñi ak lim am te nangoo bokk ak ñoom li mu am ko mu musa gis jox na la cër te xoolut ci kenn lenn loo koy sédd ci sa bopp di nit ku lewet di ku ku dégg ndigal koo xam ne fa ko sun borom joxoñoon foofa la tegoon tànkam jikko yooyu nag mooy jikkoy sang nu war ci nun génération bi ñu jéem koo dund mooy jéem a takk jikko yooyu mu diw say ñu jéem koo jëmbat ci sunu bopp ndax jikko moom daa firi boppam mooy lu ñuy jëla di ko suuxat waaw jikko danga koy ji ci sa bopp di ko suuxat benn par benn néew ñu nag ko toppandoo mel ni moom ndax ak jagle am na ci muy barab bi mu bi mu feeñee ak diggante ñi mu feeñ waaye ku ko roy ci jikko bu ñuy lim ñi baax des na la ci limaale te loolu rek mooy li am solo kon noo ngi sant suñ bay bu baax a baax ci njàngale mu leer mi nga xamante ni doon na génn waaye noo ngi delluwaat di ziar bu baax a baax kii ko fi nekkal di Serigne Cheikh Mbacke Aliou nekk ci njabootuk buntu njabootuk Serigne Aliou Mbacke gépp nekk itam di kilifa kër xari maam Diop gépp di seen kilifa di ñaan suñu borom yàggal taxawaayam te wéral ay cëram di ziar mboolem rakk yi nga xamante ni ñoom la bokkal suñu àll yi di leen ñaanal itam ndono lii leen sëriñ bi bàyyeel ñu sàmm ko ba yóbbu ko fu gën a kawee fa mag ñu doon mébét te mooy jàng ak jàngale jaamu yàlla ak liggéey yooyu moo ak yar loolu rek moo doon doona li muy jàng ak jàngale ak yar jaamu yàlla ak liggéey naka jekk bañ ko gisee ba biñ ko noppee gis ci lool yi rek la nekk lii nag daa bokk ci tomb yi nga xamante ne ni su màggal gi jub see danañ ci fàttalante ak bokki talibe yi danañ ci jàngalante ak ñoom ngir nafaraat ndax jamono fi mu toll nii nii dafa xaw day doy waar jamono dafa jaxasoo mu mel ne référence dafa ñaaw waaye buñ bëggee référence rek dañuy delluwaat ci mag ñi te mag ñi la ñu waxoon rek tilka azaruna iza aratum an taarifuna fattabiu azarana moo tax ñu delluwaat rek ci njàngale mag ñi yannaat jàngataat seen seen mboor ngir man cee sowee suñ bopp noo ngi jégglu bu baax a baax wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa